al leen ma seen i nopp ma xibaar leen yërikaay yi dañu koy door ak le mi ñuy xibaar ni génn gu njëkk gu njiitu réew mi Basiru Joomaay Fay moo ngi koy amalee ca Nouakchott yéenekaay bi samp si ab laaj ci di laaj ba xam foyage boobu ci opportunisme wala ci réalisme la aju en tout cas fi mu toll nii yombul benn yoon ci ñoom di gouvernement bu bees bi ndax crise financière bi ñu fi fekk turbune ci crise financière boobu sax Joomaay digg nañ rek daal ñu ci génn waaye jëwriñam bi nga xam ni moo yor wàllu finance xamle na ni ci guddi yu lëndëm lëndëm la ñu jëm moo ne moom Cheikh Diba préparé woon na ba tënk budget bi nga xam ni moom la fi Macky bàyyi te mu toll ci 7003,6 milliards ci kopparu CFA waaye yéeni kaay groupe des médias bi xamle na ni euh, ba tey ni toll si 15000 milliards ci bor la fi nguuru Macky Sall bi bàyyi ba tax mu samp ab laaj di laaj ba xam ndax nguuru joomaay fay bi mën nañoo rek am capacité fiscale ngir dajale boobule bor Walf Quotidien dolli ci ni ngir wàññi njëgal dund gi ak luwaaye mënul ñàkk ngir ñu wàññi dund gi ak loyer bi l'observateur di ko ca feelu ndax yéenekaay bi nee xeex njëgal dund gu cher gi ak tension bi nga xam ni moom la a def yi nga xam ni mënuñoo ñàkk wala nag amuñu njëriñ mën naa am rek li nga xam ni moo di njeexital bu taratar ci finance publique yi waaye Daouda Ngom di jëwriñ bi nga xam ni moom la dénk environnement ci le quotidien xamle na ni mënees nañoo développer sans nag ay ay yàq-yàq am mu xam ni teewal milliards yi dañu ko war a leeral ak fonds covid 19 bi ba tey nee rek bokkul dara ak nga xam ni moo di Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko mi nga xam mooy njiital jëwrin yi sosu a nee nañu rek ñoo ngi koy xaar ca building administratif yéeni kaay bi ne ci déplacement boobu njiital gouvernement bi da cee bëgg xool ba xam kër googule nga xam ni xayma nañu ko ci ay milliards mën nañu faa amal yenn ci ay banqaasu état bi ngir nag wàññi luwaaye bi nga xam ni yenn ci ay nekkoon jamono ji ndax loolu dina rek may régime bu Bassirou Diomaye Faye bi daal di rationaliser yenn ci ay finances publiques waaye lii quotidien dafa jàpp ni doole premier ministre bi nga xam ni dañu ko renforcer mën naa andil jafe njiitu réew mi Babacar Dione ci yéenekaay bi ne jël yenn ci ay pouvoiru président daal di koy jox premier ministre mën naa andi xëccoo ci boppu état bi mu xam le ni euh, ki nga xam ni moo di Bassirou Diomaye Faye comme nag daa woon ginnaaw responsabilité yi mu amoon ci parti politique bi mu nekkoon Ousmane Sonko mooy doxal lu ñeel wàllu wàllu politique ba tey xamle na ni tànk Ousmane Sonko moo ngi nangu leadership bu Bassirou Diomaye Faye xëccoo du sa am ci seen diggante ñoom ñaar ci coowal leadership boobu sax moom moo am fi ni moo di ca Benno Bokk Yaakaar ci du quotidien moom ko xamal ma xamal leen ko yéenekaay bi ne opposition bi jamono jii am nañu ay défi yu ñu wala relever te défi yooyu nag bokk na ci daal di nag régler coowal leadership bi nga xam ni moo am ca Benno Bokk Yaakaar ngir ñu tànn kenn koo xam ni moo leen di jiite waaye itam waa Yewwi Askan Wi war nañoo booloo waat boole seen seen ay programme ndax fi mu nekk nii coalition Diomaye président seen yoon daa leer nañ kenn ku leen di féqatal nekku fi euh, teg ci nag bu ñu sukkandikoo ci l'indépendant farandoowu Macky Sall yi tàmbalee nañoo dund coono ci réew mi ndax seeni passeport diplomatique la ñu daal di nangu dogal boobu nag Aji Mbergane Kanouté di député à l'Assemblée nationale xarlu na ko waaye yéenekaay baa ngi ñuy xamal ba tey ni njëgal euh, mburu bi nga xam ni moom la ñu ne woon dañu ko wàññi ba cent vingt cinq francs fédération des boulangers Sénégal yor bi moom coowal Mame Mbaye Niang ak Prodac la xëy tey yéenekaay bi ne amul benn rapport Cour des comptes boo xam ni mën na ko setal moom Mame Mbaye Niang Mamour nga xam ni moo jiite LONASE l'évidence nee na jamono ji euh, moom it euh, fa nga xam ni moom euh, ñoom la jiite bëggatuñu ko dañoo bëgg mu dem abal leen ndax yoreen gu bon gi nga xam ni nee nañu moom la yoree kër ga waaye itam ay recrutement yoo xam ni tegu ko fenn la fa nekkee ñu jeexal ak quotidien national bi di la Soleil yéenekaay bi def gëstu gu yaatoo yaatu ci njeexital mën a nemmeeku ci méthode nga xam ni moo di planning familial yu bees yi yéenekaay bi ne bokk na ci métitu bopp métitu biir ba ci sax ay saignement yu ndaw a ndaw waaye nag bu ñu sukkandikoo ci Ramatulaay Diouf Samb li nga xam ni mooy chargé de l'information bu association des sages-femmes du Sénégal nee na rek effet indésirable yooyu di njeexital yu bon yooyu le mënul mën naa nekk loo xam ni rek dañu koy gérer kon nag nekkul problème bu rëy rëy ci jigéen ñi dañu nar keppee li ci yéenekaay yi ma delloo leen seeni nopp ba ëllëg ak jàmm ci Sénégal 5 TV ngeen